leen nuyu di jiital ci nuyoo bi délégué quartier bi ñu fekk ak imam yi ak sunu doyen Badara Fall mi toog tey mooy sunu xalifa ci jataay bi ak ñi fi nekk ñëpp euh, di am mbégte lool nag mbégte mi fu mu commencé rek am naa fu mu fu mu commencé ci mbégte rek romb na ko ci man sama xol bi ci seddaay gi mu sedd ci lii ci bis bi ndax euh, proposition bi ma Étienne defaloon pour signature contrat bi am naa ci lu kawee sama njor dans dix jours mu ne ma dañuy inaugurer rajo bi comme FM te dama lay defal nga ñëw def fi signature contrat en direct doo fay dara loolu loolu loolu defe naa c'est la première fois tey mu am te ci lu mel nii tey ci jaareel mbégte moomu nag euh, lu ma ci am rek bokk naa ko sama xarit yii muy jaw baas di bokk ci samay partenaire depuis ma nekk ci làmb ji ba léegi dama ci ànd ak moom sama rakk ji fekk si ko ci tey muy Abdoulahad Ndiaye borom fast food Cheikhou Dia nekk fii Thierno kànji am ko kër gu mag am ko centre ville bi muy xale boo xam ne macha allah xale bu loxom setee mu mën a bokk ak eh, mag mu dem uti mu dem uti bi mu amee mu dellu siwaat njaareem investir li mu investir nag lépp da koo jëmale pour jëmale njaareem kanam moo tax bi ma ko sollicité si événement bi da cee ànd ak man ak jaw baas bii nga xam ne nii fekk si na ko ci mu yàgg ma jàppale ci samay événement maa ngi leen sant baax di leen gërëm di leen ko présenté di leen wax waa Njaareem li doon jooy am na fi léegi muy fast food yu baax kër gu mag buntu kër sëñ Mor Mbaye boo jaar ci route Touba bi ci boutique orange bi nekkoon jëmm ji moo fi ubbi fast food bu mag macha allah ubbi waat na ko fii Ndaayaan fii ci wetu uh, Grand Diourbel wetu place su Baas bi ubbi na fa benn am na benn centre ville rond-point Diaw Baas ubbi na fa benn lép nag pour doxal dëkk bi fekk fi si magam jaw baas nga xam ne ku ko ñëw pour doxal dëkk bi da ko ciy jàppale ndax njaaram rek lay bëgg dinañ ñaanal moo leen dalal dinañ ñaanal yàlla leen yàlla la fal cat jàppale leen ba projet yi ñu am pour Diourbel yàlla jàppale leen ñu développé ko man nag mënumaa sant mënumaa sant waa Njaareem mënuma leen a fay dama leen di sant rek làmb nag Étienne bi depuis vingt ans maa ngi ànd ak moom ci làmb kenn mësuñu cee dégg ginnaaw bu loolu jàllee damaa war a jiital ci nuyoo bi président CNG muy mbay Diaw di sama papa ak équipe bi toog yëpp waa CNG maa leen sant baax leen gërëm di nuyu président ménager yi ak presse bi yëpp bàyyiwuma kenn di wax daal am naa mbégte mbégte nag boo ko amee sa day sedd ba doo mën a wax mbër yi tey lii ñu leen defal yàgg na leen ko defal ngir lan jëmale làmb kenam pour jaay combat bi moo tax ñu créé événement bii di leen jox rendez-vous le 21 ngeen ànd ak yar ak discipline xam ne lamb lamb loo rek moo ko yor foog ree la rek foog ree la bu nu jëlee suñu xaalis di ko def ci yeen ndax seen bëgg-bëgg la il faut ñu jàppale leen ci waaye bu ngeen amee yar bi yaa ngi dégg ak dal gi ak tey gi ñuy gën di sawar di investir ci yéen comprendre nga yéen yéen amateurs yi nga xam ne nii da bëgg làmb ak supporters yi ngeen ànd ak ab yar rek nga xam ne ñu dañuy fo rek sport la rek discipline la laaj at leen a ger ak teey ak teggin ñëw ñu feete bis bi la 21 di sant sama parrain bi ci am Ndëri ak yeneen parrain yi nga xam ne nii bokk nañ ci événement bi te bu nu yàlla yóbbu ci la 21 bi ngeen ko gis am nañ ay surprise dinaa leen sàcc wax leen am na ci combat bu mag bu nu taxawal boo xam ne ci jouru combat ba ci la lañ koy wax ci jouru combat bi ci lañ koy wax te ñaari mbër yooyu dinañ ñëw ci la 21 bi signé contrat le 21 dina am surprise boo xam ne nii ku ñëw ci làmb ji da ngay ñaari mbër yu mag ñu signé ak ñoom benn contrat boo xam ne nii pour jàpp beneen deuxième journée bi di nuyu sama doyen sama xaritu promoteur bi nga xam ne ni mooy Sall Confiance nga xam ne dafa ñëw jàppale ñu ci làmb fekk si ci làmb fu làmb nekkoon mu jële ko yóbbu ko ca kaw ndax jeune la ku bëgg làmb la ñëw di investir ci làmb ndax tey taxawal na plus de vingt cinq combats deux journées nii taxawal na pili de vingt cinq combats loolu jàpp na ci laam loolu mënu ma ko. lool mënu ma ko. te man mbir mi xatoon naa ci wéetoon naa ci waaye bi mu ñëwee daaw ba ren xale yi jooytul làmb ménager yaa ngi nii toog yéen ñëpp am ngeen combat grâce à Salle Confiance bii deux journées mi taxawal na vingt combats sa boo ko xoolee mu nekk quarante lutteurs. ak ñoom Sadia production ak yeneen promoteurs yi nga xam ne suñuy suñuy frère lan ñu leen dalal jàmm di leen ñaanal yàlla leen yàlla defal jàmm ba seen journée yi nuy séentu yàlla eggale leen ci mu am ci réussite totale yàlla na ko yàlla na yàlla jàppale ndax suma rakk nga te nag ci famille làmb la bokk ndax ku dëkk bawal doon dund làmb ndakaaru nga xam ne tey boo dee Assane Ndiaye promoteur moom moom mii ay frère lan ba tey Diourbel production bi mu kéré ànd cee grand Étienne ak ak ak ñoom Bass ñëpp loolu am naa ci mbégte lool di ko ñaanal yal la yàlla jàppale fi nga bëgg yóbbu làmb suñu borom dimbale la ba nga yeggale fa sa journée yi mu réussir di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn di nuyu soxna see nga xam ne mooy euh, madam euh, Seck déglu na ay kàddoom gàtt na waaye am na solo rajo bi daal yal na ko suñu yokk ba def ko télévision ndax grand Étienne dara jomb ko ah dara jomb ko ndax nit ku dëggu la nit ku franc la nit ku bëgg li muy def la ba ci CNG bi mu nekk tey vraiment am na fu mu ko yóbbu ndax day gëstu te li wax lu leer la machallah ma ngi nuyu ñepp dal di sant ñepp nuyu suudu suudu sama xarit bi suudu Baye Fall nga xam man ak mom bi muy ñëw njaare mën leen ko denko lool na xamna xamu leen ko won suudu mi baye man la ko dénkoo daa ñëw yëkkati ko joxe dama denk na la suudu waaw léegi nak du nangu nak waaw non xam nga dañ mako denk waye day nit ko xam ah léeg-léeg mu bëgg ki ñu ne ma ñewal sa waajaanga waye man dal man ak mom dal man ak mom rek mu rok soow la rek andu tour wala and nan rek bay Fall bi jere ah, jeuf kon nak déranger ñu ngi lay jéggalu sa adversaire ñewut ménager wax na nok mom bay Babacar mi suba wonama na waaw wax yo xana nok yow xam nga wax na nok yow sunu sañal mu ñew boy mbacké balé boy Bambey bi ménager euh, sa adversaire ñew ñu ngi jéggalu ndax bu ñuy créer événement bi pour bëgg yeen ñëpp mbeur yëpp ñew ñu ñu def fête ñu def fête bu neex waaye lii tey gënaluñu sa adversaire bi ñëwut gënaluñu ñu ngi jégalu bu baax dégg nga Cheikh Senghor yow sa mbër bi ñëwut mooy Jaylaani ñu ngi jégalu tamit yow ja euh, Laat Gueye sa adversaire ñëw ñu ngi jégalu dégg nga jërë ngeen jëf merci beaucoup di sant sama rakk ji nag ñaanal leen ko bu baax ba projet yi mu andi ci dëkk bi yàlla jàppandeel ko ba ba ba mu am ci lu koy njortam ak sama frère bi jaw baax ànd bi rafet na macha allah jërëjëf. nan nga waajale combat bi. salaamaaleykum maa ngi nuyu mbooloo mi di sant sant yàlla julli si suñu ñaari waajur di sant ñi ma àndal di leen gërëm ñoom ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di gërëm ba ñu fi teew waaw du ñu sama adversaire ko ñaanal jàmm ba suur ko jàpp ko daan ko si kàttanu yàlla. nan nga waajale combat bi ak lu la combat bi jaral. waaw combat bi moom li ma ko waxoon sànq rek combat bu doon daan rey moom du ko jël bu doon daan rey moom du ko jël dama koo xam. lu tax nga wax loolu. am na fu jaar ak yow. waaye waxuma loolu de dama ne. waaw mës ngeen a bëree. am foo jaar yéen ñaar. est-ce que est-ce que yaa ngi ciy xel. moo koy daal. ah en tout daal li ma xam ba xam mooy moo mujj ci sa kaw te xam naa ne li muy andawaat mooy daan la combat bi booy xeex ngay andi. wala bëri su bëree ma daan bu xeexee ma du kii ñu koy indi ñu amul bëri xeexal ak amul kii nag journée bi amul mbër nga taxaw xeex ak man amul déggu ma am journée ku ma si xeexal nga wari ah bon waaw wóolu nga sa ma duma rek bu bëree ma daan ko su xeex ma duma ah léegi amul frein balaa ñoo gën a sori yow ñaata combat nga def combat yi ma des defe si dus, defe naa. def nga douze combat. waaw yaa ngi ci ñaata victoire. maa ngi sept victoire. yaa ngi ci. sept sept victoire mais cinq défaite. allah am na solo léegi joxal ma melax. barki Rasul laa jàkkaarloog melax melax. joxal ma jàkkaarloog sa adversaire. asalaamaaleykum yàlla na saytu sama gars yi sama a kawe barke maam a baax di gërëm Serigne am di xarit xarit xarit Fall maa ngi koy nuyu bu baax sama wasila Serigne maam Cheikh ku sa ak sa sant yëpp maa grand pape maa ngi lay bëgg para pape Diagne ak yéen ñëpp bii ñu tëggkat yeeg yëpp duul na tous les positions il est fondo il est mode duul duul yéen ñëpp dana leen tuul waaw suma booy yi booy waa Texas boobu waa kër yéen kër Baye mais ñoom ñu lay bëggal waaw waaye maa ngi bëggal bu baax a baax continuation ak xaal waaw li mu xew nag ku ne gis na ko ah moom moo ma daw xëpp ko waaye mag ma door ko muy ma xamee muy ma loolu jaruñu ci ñëwaat ma la koy lebalaat waaw loolu jaruñu ci ñëwaat xam nga lan laa bëgg a xam laaj naa ko sànq moom ñaata combat la am yow tamit bëgg naa xam ñaata combat nga def ci arène bi yow moom yaa ngi lay bëri. donc nag sama combat yi ñaata at na sax. dégg nga kooku laaj. victoire sama combat yi. kooku laaj 11 combat Ya victoire victoire yi neuf victoire ya neuf victoire neuf victoire limal ma ci trois personnes ni nga kan, daan ma daan Paul Maurice bu xojj Paul Maurice bu xojj daan fils Jam Diop daan fils fils Jam Diop daan Elton daan Elton sopé galas Mbacké ah mi indi ko ma daan ko ah. ani ma defal ya. rendez-vous le 21 novembre au stade Elimanel Fall boy Mbalah boobu ma lakk amul frein. revanche lay doon wala confirmation yow da ngay ñëw pour confirmer moom ngay jël si revanche am ndax da nga la bëriwoon